yéenekaay yeeg Malal Junior Diagne. bisimilah. ana ñëwoon Abdoul mbay mii du wax observateur ni diiru fukki waxtu démb moom abdul mbay mii tontu na dàggasante na defante nag ba mu saf sàpp député yi nekkoon ci pencu ndaw réew ma loolee lépp ngir kon yeggee leen tegal leen na mu na ma kon yére réew mii di Sénégal journal bi ne Abdoul Mbaye yëkkati nag kàddoom jëm ci mbënd mi ni kon des cey dugal ñeen fukk ci ay milliards ngir saafara ko yamul foofu ndax jëruñ ju njëkk ji nee courant bi gën jaa sori fileeg 2013 des ci indi ay saafara mbay mi itam abdul mbay bàyyiwu ko ndax ne gën jaa sori lu mu xat-xat lu mu métti métti fii ak 2018 dina ci indi ay saafara ba kon mbay mi doon mbay muy dundal réewum Sénégal Abdoul Mbaye yamul foofu de doomu juge kebaa mbay bi kitaabu na ni koppor yi nga xam ne Sénégal moo ko moom te ay yenn ci nit ñi nekkoon ci nguur gi làq ko ca banque yi nekk bitim réew des koy jëli des koy jëli indi ko ci réewum Sénégal gi ndax askan wi soxla na ko le populaire yéene kaay ne safoon na de yëf yi safoon na sàpp démb ca pencu ndaw réew ma de ndax moom Abdoul Mbaye mii dafa dikkoon ca kanamu député ya ngir yegge leen DPG wam bi ndax kon député yi nekk ci kujje gii ba nu jëlee kàddu démb ca pencu ndaw réew ma doon ko doon galgal di koy indil ay jafe-jafe jëm koy xalaama nir bàjjoo xalaa xalaa doo fi jaar waaye Abdoul mbay dellu ca ginnaaw benn yoon tiitul de Abdoul Mbaye raful ñaari yoon dafa jàkkaarloog ñoom defante ko ñoom ba mu saf sap lu ñu ko laaj mu tontu leen lu ñu ko gasal ci mpax mu tege ko wëri jaar feneen assemblée nationale bi populaire ni kon démb defante la woon moo rawoon xade dar ndax député yi bokkoon ci bennoo bokk yaakaar bàyyi ñu Abdou mbay mu wéet benn yoon jàppale nanu ko de jàppale nanu ko de wéttali nanu ko de ndax saa su ko ku jege attaqué gars yi jël kaddu défendre ko ngir rek mu mën a doxal liggéey bii que Sall sant libération ne abdul mbay mii fees na palaasam mat na sëkk lanu ko doon doyee yéenekaay bi yamul foofu ndax mi ngi nuy yeggee kaddu premier ministre ba fi woon di Souleymane Ndéné Ndiaye tey député la doomu gin gi néew gi ba mu jëlee kàddu démb ci pencu ndaw réew ma dànkaafu na Abdou mbay dànkaafu na Macky Sall nee na gars yi dakal xupp gi nuy xupp ñi fi nekkoon yore nguur gi ndax Souleymane Ndéné Ndiaye mii nee na loolee du pexe Le Quotidien ni cëpp ci biir géew bi ni Abdoul mbay kay demul cëng dikkul ngaay daa dem ba mujjee réer ci biir ay kayitam te loolee lenn waralu ko lu may ay cong ay cong yoo xam ne mi bokkoo ci kuje politique gi ñoomin Modou Diagne Fada ki gaayam bàyyiwuñu ko benn yoon mu xalaat lu mu soq lu ne gaa yi bojj ko ci noonee la kuje politique gi teg ci kanamu Abdoul Mbaye mii mbiru Abdoulo ministre bi am ñaari nationalité tax kon ba député benn bokk yaakaar yi jógee ki seen kàddu euh, tontul ko défendre ministre ba ngir sant ko mu doxal liggéeyam ndax ne kuje gi defuñu lenn lu may tappale ak jéem a nax askanu Sénégal maître El Hadj ci biir le quotidien jël kàddu ni gaa ñi li ñuy def du fula ni gaa ñi li ñuy wax du foofu de ndax am na mbir yoo xam ne moo gën di doon farata Maître El Hadji ne xëyum ndaw ñi wàllum wér-gu-yaram si wàllum inondation yi wàllum liggéey jëm ci wàllum mbay nee na ponk yi mooy farata waaye jiiñante bi tamante dëmm bi ay ponk la yu war a jeex ci pencu ndaw réew mi ndax loolee taxul ñu nekk ci pencu ndaw réew mi askan wi yóbbu leen foofa ma bàyyi ko ci assemblée nationale taxaw ci biir kuddu centre des œuvres bu ndakaaru bi toj na rapport cour de comptes diggante 2006 ak 2010 moo ko toj weer na Sutoor Nduur weer na Iba Gueye ak i société yu nekkoon ca boobule kuréel doon jëflanteeg ñoom enquête nii bu leen sori affaire bi séddale bukki la bii bukki bii njuur bi samba bi njëkkante la te njëkk naa ci journal bi ne sées ci ay milliards ci mbor di wàllum fiscalité journal bi ne ca kuddu googee dañ daan jox weer wu deewu ne juróom benni téeméer ak ñeen fukk ci ay litre gasoil directeur kudd bi rax ca dolli directeur yeneen yi mooy suq su ndaw si gën jaa gàtt di nga am juróom-ñett fukki litre ci essence rax ca dolli euh, séddale wenn woo xam ne des ko doon def ci ay subvention euh, jëm ci ay daayira jëm ci ay amicalu étudiangul yii nekkee université lu mooy noos ak ndata talax journal bi ni des na ndax ci bile institution amoon na ay fal yuñ fa fal ay nit mbiru yaa ma neex la amoon itam mbiru yaa ma neex coolu recrutement bi li neexul stade yéene kaay mooy ñetti minute képp yi Abdoul Mbaye eh, jagleel wàllum tàggat yaram eh, journal bi xëy ci wàllu wu ni mel ni kon loola rafetlu wunu ko du dëgg du yoon Abdoul Mbaye amul lenn lu muy wax ci wàllu tàggat yaram lu may ñetti ci ay simili journal bi yamul foofa ni ñeneen itam ñi ngi nii li xew ca Côte d'Ivoire neexu leen Isiar Dia ak Demba Ba ne la ñu toog ca Bamba keroog safu leen kii saf sàpp ci journal yi tey jii moom moo di Cheikh Yirim sek ibil l'observateur le quotidien ak populaire journaliste bi duñu ko tuumaal duñu ko tuumaal dafa cuquri dafa cuquri doomu magistrat bu tudd ay Aïssata Tall caxat-caxatee ko yàqu ko yaxeet ba tax guddi biig bi ci kaso Rebeuss gi la fanaan journal yi nu foofu de ndax ña ngay faram fàcc yëf yi naka la demee ndax nee nañu Cheikh Yérim sekk mii bu ñu sukkandikoo ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon li ñu koy tuumaal bu nekkee moo ca tax rib dañu dugg ci kaso bi de dañu dugg ci kaso bi gàtt gàtt juróomi at yoo xam ne ko fas yéene kon tëdd ndax dafa caxat-caxatee Aïssata Tall mii yaxu ko yaxeet billaahi billaahi ku ci topp dangal yii topp paccal yii topp fu ñuy daje fu ñuy daje billaahi fa ngay daje